ñun fépp Tawfekh. ak travail des enfants. ñun fépp Tawfekh dañoo gëm suñu secteur éducatif dafa nekk secteur gën a sonn gën a euh, tumuraanke ci réew mi ndaxte éducation système bi nga xam ne moom lañ ci tubaab bi indiloon ci temps colonisation bi nous le courage de sénégaliser l'école sénégalaise. Ouais, tout à fait. le premier aspect c'est de dire kon il faut une réforme profonde des programmes loolu dañ ci waxtaan ak ñi nga xam ñëpp ñoom la concerne pour que ñu changer curricula hmm. li nga xam ne mooy nos nos de culture li nga xam ne ñooy nos valeurs sociales li nga xam ne mooy notre religion hmm. et ça je le dis très haut hmm. muy catéchisme muy alxuraan dañ koy duggal ci éducation sénégalaise du ma waxtuma éducation francaise li nga xam ne mooy mooy les langues nationales dañ leen di dooleel ci éducation mu nekk vraiment une éducation une école sénégalaise. Mm-hmm. mooy le système formel qu'on appelle actuellement l'école française. à côté de sa mu am les daara les daara dañ ko war a formaliser ñu am deux systèmes éducatifs mm-hmm. parallèles mm-hmm. l'école sénégalaise et l'école des daara l'école des daara nag il faut ab dañuy woo ñi nga xam ñëpp ñoom la séq mais ñu normaliser ko formaliser ko comme école française ni mu mel tey. xam ECOFAS dafa am sixième cinquième quatrième après nga def entrée en sixième après nga def. Hmm. sixième cinquième quatrième troisième kon moderniser moderniser daara yi président Macky Sall doon wax baax c'est-à-dire que formaliser. format format formaliser la paix. Hmm. mais une fois nga formaliser ko nag day nekk système boo xam ne état bi li muy def ci école française lay def ci daara yi. Hmm. Mhm. day nekk un système formel. que l'état prend en charge. Mhm. doo am sëriñu daara boo xam ni. ndongo yi ñooy dem di ko yalwaanal pour mu am pour mu lekk ci kër gi. état mooy fay ki nga xam ne mooy jàngal daara ji. doo am sëriñ daara boo xam ne dafa war a dem tabax tabax néegu ñax wala dajale ay briques wala dajale ay seng pour defar daara. état mooy tabax ecole boo xam ne école daara lay doon. état lay war mu tabaxal leen euh, infrastructure bi nga xam ne mooy nekk daara ji xale di jànge état lay war mu def ci ay table def ci ay banc comme ni ñuy defee table. ak ak ay banc ci école Salif Ndongo da mhm. def un système formalisé mhm. à partir de ce moment donc ñu ni également xale yi ngay day jaar ci système daara mhm. xale yi jóge ci système daara boo gisee de mën nañ fa def juróomi at ba jusqu'à fukki at lu ñuy jàng alxuraan diine xam-xam jànguñu formation professionnelle amuñu formation professionnelle amuñu métier amuñu métier donc il faut que mu am un prolongement avec ñun li ñuy wooyee les collège de des métiers et de la technologie xan xale yi nga xam ne dañu ne dàq ci école bi parce que voilà da xarañu dañoo échoué entre parenthèses boo gisee cent élèves yoo xam ne dugg nañ sixième daara kenn ki mooy dem CM2 euh, université université sur cent sur cent sur cent sur cent kenn ci meen investir un pour cent dañuy déggu sixième daa rek mooy àgg. maa kenn moo waa affaire euh, alors affaire euh, service militaire bi nag. te wax ko ci dialogue bi. service militaire bi j'étais sur ça may ma daaneel. pour dire que ces collèges ces collèges des métiers et de la technologie mooy xale yi nga xam donc dañoo jógee ci daara ji xale yi nga xam ne dañoo échoué à l'école mais xale yi nga xam ne tamit dañoo nekkoon ay apprentis. apprenti tailleur apprenti maçon apprenti eh, mécanicien et cetera mm-hmm. am nañ formation sur le tas da nga leen war a bi du dugal leen ci see collège de la métier jox leen une formation professionnelle mm-hmm. am un diplôme reconnu par l'État de sorte que ñooñu dinañ mën a insérer wu dans le circuit euh, productif mm-hmm. au lieu ñuy jël ay looco di dem di dem Europe on retourne sur le premier